màgguk yàlla moo néew doole ci suñuy xol yaruñ ñu ci tawhid yaruñ ñu ci respecte yàlla yaruñ ñu ci wéetal yàlla yaruñ ñu ci bëgg yàlla yaruñ ñu ci xam kan mooy borom bi subhanahu wa taala waaye dañ ñoo bàyyi rekk ñu mel ni ay bëy ci àll kenn ku nekk noo déggee ngay defee wa ma qadarullaha xaqa qadri borom bi nee na dëgg-dëgg joxu leen yàlla dayo bi mu am yàlla dayo bi mu tollol joxulen ko ko su ngeen ko joxon dayo bi mu tollol da ngeen ko jaamu su ngeen ko joxon dayo bi mu tollol seen xel sax du xalaat ngeen di jël yàlla di ko dendaleeg len bal seen xel du xalaat ngeen di jàpp ne yàlla amna aji bind bu ko bind wa kullu shay'in lahu aya tadullu ala annahu lwahid waxkat ba nee na lépp loo gis ci kaw suuf am na buy yàlla rek mooy yàlla wallahi màggug yàlla tuuti na ci ñuy xol tey loolee yóbbu nañu ci ñu yenu ay bàkkaar mboolem bàkkaar bu yéefar yi defoon yàlla mbugal leen ca tey ñun def nañ ko moo yow jaamu yàlla bi moo ndax xam nga ni asamaan ak biddiw yi ca nekk mboolem li nekk ci asamaan ak biddiwam moo ndax xam nga ni loolee bu ñu la nattoon yàgg moom kan mooy ëpp ba nga juddoo ba léegi asamaan dalaa tiim tiim sa ndey tiim sa baay tiim mboolem koo yaakaar tiim képp koo ni mooy waaja asamaan da ko tiim boobu ba léegi asamaan rafut yëngatuwut xarut amul benn fisiir moo ndax xam nga ni asamaan ak suuf jox nañu yàlla gëdd bi mu yeyoo ndax asamaan ak suuf xam nañ ko mbokk yi ban bindeef moo gën a rëy asamaan ak suuf mu ndax am na mbindeef noo toll yaa ngi ci diggante asamaan ak suuf mbokk yi asamaan rus na mooy yàlla suuf rus na mooy yàlla borom bi subhanahu wa taala ne summa stawa ila alsamai wa hiya duxaan fa qaala laha wa lil ardi itiya tawan wa karha qaalataa atayna taa'iin borom bi bi mu bindee asamaan ak suuf yemoo ca coobareem ca kaw asamaan jël asamaan mu mel ni am saxaar borom bi jox ndigal asamaan ak suuf ne leen topp leen samay ordre itiyaa tawan aw karha mu neex leen ngeen exécuté mu ñàkk leen a neex ngeen exécuté mu mel ni leen ne ci armée nga xam ne arme boo ci nekkee bu ordre ñëwee amoo droit nga laaj dangay def ba pare doo nga xam borom bi ne asamaan ak suuf mu neex leen mu naqari leen topp leen samay ndigal lan la asamaan ak suuf tontu borom bi subhanahu wa taala qaalata atayna taa'iin ne ko yàlla ñun ñëw nañ ci suñuy coobare nangu topp ndax yow yaa ñu bind yow yaa ñu bind asamaan nangu suuf nangu mbokk yi yow nit yàlla bind la forcé wu la jox la xol jox la xel jox la xalaat defal la lépp tànn la teg la nga gën a taaru lépp lu mu bind qad xalaqna al insana fi ahsani taqwim borom bi ne bind nañ la yow nit ci taar bi gën a taaru yàlla defal la ko yàlla dox la xel nga nekk xalifa ci kaw suufu yàlla yàlla bind bindeef yépp li fi nekk lépp amuñu xel yàlla jox la xel tàggatal la suuf ngay tabax néeg di dëkk ngay tabax kër di dëkk ngay bay di dundee ngay liggéey di def ci sa poos muy tàng ngay utiloo uppoo muy sedd ngay wutiloo sàngoo su tàngee gaynde gi amul mbàjj bu mu sàngoo jaan bi amul mbàjj bu mu sàngoo bu seddee kazalika naka noonu rab yépp bu tàngee bu seddee amuñ ci choix waaye yow nit nga mën a daw làqatu ci ker bu naaj tàngee boo tiitee nga mën a dellu borom bi subhaanahu wa defal la lii ba pare jox la xel teg la taklif ne la nag sa xel laa la bàyyee ne la man may borom bi man mayee ñu jaamu ma léegi nag la voie est libre xoolal looy def borom bi ne loolu laa defal doomu aadam teg la ci ñaari voie wa hadaynaahu najdayn waaye doomu aadama falaqtaxama al aqaba borom bi ne ma teg la ci ñaari yoon defal la lu la kenn defalul ba pare ne la nag yoon bii ci man la jëm yoon bee ci iblis la jël yow doomu aadama nga mën a bàyyi yoon bi sa borom santaane mooy lan jël yoonu bokkaale jël yoonu yab borom bi ba mujj gi di mooy yàlla bay yëkkati kàddu yoo xam ni ëpp na ci nit mu koy yëkkati xanaa xamoo ni asamaan ak suuf dañoo jéppulu ñeel borom bi nan ngay wuuteeg asamaan ak suuf rab yi dox lépp dañoo jébbulul borom bi mbokk yi bàkkaar bi gën a rëy ci kaw suuf ñu mooyee ko borom bi mooy ban bàkkaar mooy utal yàlla ndend mooy bàkkaar bi gën a rëy abdullah ibni masud radiallahu anhu en saaltu rasul allahi sal allahu alehi wa sallam ayu zanbin akbaru inda allah فقال صلى الله عليه وسلم أن تدعو لله ندا وهو خلقك ابن مسعود nee na damaa laaj borom bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ban bàkkaar moo gën a rëy ci yàlla ban bàkkaar la yàlla gën a bañ yonent bi ne ko nga utal yàlla ndend te xam nga ni yàlla la bind an tad'u lillahi niddan wa huwa xalaqak wa fi riwaya an taj'ala lillahi niddan wa huwa xalaqak imaamul bayhaqi رحمه الله وخنا تي شعب الايمان من يوم القيام يونت بي صلى الله عليه وسلم ني سوي يالا فاي جامي بامو ديس نيكو دون بوكالي ولا نيكو اوتل ندند ولا نيكو فوي ني بوروم بي ديف لين دي وخني اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء وخيرا rawahu muslim borom bi ne leen yéen ñi doon bokkaale utal yàlla ndend wutal ko moroom dem leen ca ña ngeen ni woon ñooy waaja ña ngeen ni woon ñoo bind yàlla ña ngeen ni woon ñoo defal ni yàlla nangam ña ngeen jëloon tuddee leen jox leen place borom bi dem leen ñu fay leen bu fekkee am na te xam ngeen ni ñooñu ay mbindeef lañ musuñ koo wax ñoog ñu na yem ay jaamu yàlla lañ danañu taxaw nangu jaamu googee waaye yéen ñi leen doon jaamu nag dem leen ngeen laaj leen ñu fay leen bal ndax ñooñu sax dem nañu ak àjjana kenn xamul xel mu rafet rek lañ ci am ak yaakaar waaye kenn xamul. am na koo xamante ni fi ne am ndoxum tawam mi ngi xellee ko bis bu nekk te mënu koo téye da ngaa yaakaar tax mu téye yàlla boo ko téyee subhanahu am na koo xam ne ay dem àllam bis bu nekk mi ngi génn moo tax mënul génn hôpital. da nga yaakaar ni yàlla moo ko téye subhanahu wa taala da nga ni koom-koom mi ngay tiitaroo yow yaa ko moom borom bi sonta la mën na koo nangu ci kanamu nit ñi ba ñu gis ko gis ngeen xaaru fa mujj yàlla ba mu ko jëppee gis ngeen ne yaa jël falamma aasufuuna yàlla mu ni ba ma leen jëppee rek intaqamna minhum ñëpp laa faagaagal fa agraqnaahum ajmain yàlla mu ni ma alag leen ñoom ñëpp fa jaalnaahum salafan def naa leen ñu nekk ñu jiitu yaay exemple ngeen leen di xool ومثلا للآخرين من ني ولا نيو تيفن غناو ني وارا وارو تي نيو نياتو تي اي نيت لا سون بوروم جوخون خي خاج لين امنا كو خامي سون بوروم مسو كو خاج واي ديفين فاتو خينا نياك كون بو نياكي وول تي ني دا نياك تي نالي كون باكوم باير خيل سا ديغنتي سا بوروم سون بوروم دي واخني يا ايها الانسان اي دوم ادم ما غرك بربك الكريم لم موتاخ غاي ريوان تي جيمي سا بوروم سبحانه وتعالى لم موتاخ نا وور لم موتاخ لي ييك سا بوب لم موتاخ نا فوي لم موتاخ نا ياكار ني لي نام ياكو ماي سا بوب الذي خلقك xana nga fàttali kooku mooy ki la bind fa sawaat moo la melal ni nga mel nga yem loxo yi sandaantal wadd ci suuf tànk yi ni sojj taxaw bopp bi ni tegg ca kaw borom bi mu ne maa la def noonu fi ayi suuratin maa shaa rakkabak melokaan wi nga xam ne moom la borom bi tànn muy melokaan wa gën a rafet fa moom pour jox ko doomu aadama la la jox ci taxut nga delloo jëkkal sunu borom mu ne wa inna alaykum la xaafidin ah am na ñu lay wër de am na ñu lay wër de fële mu ne inna kunna nastamtixu ma kuntum taamaluun li ngeen doon yëpp yëpp ñu ngi koy tàppe di ko denc fii mu ne wa inna alaykum la xaafidin am ngeen ay malaaka yu leen di wat kiraaman kaatibin malaaka yooyu ñu tedd fa suñ borom allahu akbar kiraaman inda allah afala yakunu lahum karamatun indak xoolal yàlla mu melal leen ni ñu tedd lañ fa yàlla te yow ñoo ñu tereloo leen li lay wan ni teraloon mooy njaaxum yi ngay dugg boo leen teraloon doo ci dugg sunu borom ni ya'lamu ma tafaaluun mboolem lu ngeen def nag xamna ko ñoom it xam nañ ko ñing koy bind borom mu ni ma lakum lan mo leen dal ba la tarjuna lillahi wa qara amu leen rek ci yàlla subhanahu wa taala billahi ni bari amuñu rek ci yàlla subhanahu wa taala le leeg nga deg ben way mu wax lu upp lu upp nit ñi di ko dégg ñu noppi même buñ lay rey nañ la ray ci deug na fekk yow bul soobu ci lo loo mënut bul soobu ci lo attanut waye na yàlla rek tax nga soobu benn waay bu taxaw mu ni diw yàlla ne ko da ngay kàcc ko ko mu dégg ko la ko waral mooy dafa woon boo seetloo ñu bari ci ñun mbokk yi moo moo moo jeex moo jeex wallahi leneen nga dégg nit wax loo njaaxum goo xam ne jiit naa moos yow mi ko dégg te waxoo ca dara borom bu lay xisaab dana la ci buggal ndax am na kàddu yoo xam ne ëpp naa dégg am na ñoo xam ne buñ ko déggoon loola mën naa nekk seen dégg àllaaxira muy ay kàddu yu ñaaru yu ñàkk teggin yu ñàkk xorma ñu koy jëmale ci borom te ñuy jàngale pas-pas mi ngi nopp kenn waxu di amal ne kenn kuñ fi tuddoon ci koo xam ne ak kilifa la bu ay nit topp yàlla xam ne lu gën a néew li ñuy wax suñu borom buñ ko ko waxal rek ak bi tukki tey te ñi ngi koy waxal ay nit ñu leen dépendre kenn ñi mënu ko waxal ñu waxal ko suñu borom way gëm yàlla yi ni cër kenn ñi moo la wax ñaata nit ngay gis ñu ne ci rajo wala télévision di wax ay wax boo waxee da ngay jur fitna ban fitna ban fitna ban fitna moo gën a rëy yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko jëmale ci borom bi subhanahu wa taala ak ni mu màggee ak ni mu fooree yàlla nga xam ne waroon naa àgg ci sa xol foo xam ne wallahi téen xool asamaan teg ni mu màggee rek war na laa jooyloo yàlla ak ni mu màggee nga xool ko ak li nga xam ne moom la def ci xeeti yërmande àddina bi yëpp soxla ndox ñu xam ni xel koo fi woo ku nekk sëgg sikki rek la man comme yow ñaan yàlla yàlla mu ni ma taw ba bu tooy fan ila aathaari rahmatillah xoolal jeexinte la yërmande yàlla yi كيف يحيي الأرض بعد موتها قال سنبرم يصوركم في الأرحام كيف يشاء بغن كتبير رياي مولي ملل إلا ولبتي فنمل نمبق من سنبرم قال سنبرم سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا يعلمني أتمنى ماني كنكت أكسوستي وما أمتي تلك ولا أنزالتا سنبرم لبريتون بوانس إن أمسكهما من أحد من بعد أبو كيركم من تلك te borom bi mi ngi ko téye subhanahu wa taala xalaatal ci orma jooju nga xam ne moom nga war a jox borom bi subhanahu wa taala ngay lekk muy reetal ngay naan muy reetal ngay moy muy mu luy muñal yonente yàlla mu ne laa ahada akbara min allah amul ku gën a mën a muñ borom bi subhanahu wa taala xoolal ñaata moy yoo xam ni bu la ko suñ borom jàppee woon tey doo fanaan ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة سن برام من بولن دون جابين لين دي ديف كين ديس سي كاو سوف mbokk yi nañu gën a góorgóorlu waat nañu bàyyi waat xel sunu borom sunu borom ni maalakum lan moo leen dal maalakum lan moo leen dal ba laa tarjuuna lillahi waqaara ba amu leen benn orma ci yàlla subhanahu wa taala wa qad xalaqakum atwaara te borom bi mu ni fi ngeen jaar cycle cycle yi ngeen jaar borom bi mu ni maa leen fa jaarale alam taraw xanaa xoolu leen kayfa xalaqa allahu sabaa samaawatin tibaaqa juróom ñaari asamaan yu tegaloo dara téyewu ko yàlla mu ni xanaa xoolu leen ah sunu borom mu ni xanaa xool leen ni yàlla yéeg yéegale asamaan wa jaala alqamara fihinna nuura lumière bii leer far guddi borom bi mu ni maa ko ci def wa jaala alchamsa siraja jant bi tàngal maa ko ci def wallahu ambatakum min al ard nabata gàncax bi ngeen dundee maa ko saxal ثم يعيدكم فيها كدين تمبل لك ويخرجكم إخراجا كديك لجين لك mbokk yi nañu bàyyiwaat xel suñu borom subhanahu wa taala nañu yeesalaat suñu tuub jëme suñu borom والله كو نيك سي نيون يور نتي اي بكار لو خامني بولو كو بوروبي جيغنول سبحانه وتعالى ديغا يا تي بوروبي ميغي تالال اي لوخوم تي كودي اك بچي دي سات تي ميغي تو فل متائب مستغفر كم موي توب كم موي جيغلو داجيك بوروم بو خامنتي موم دافا بڬ تاخ دي جيغلي يالا موني يوم ميغا خامنا غا ديف اي بكار با يا يا ايها الذين اسرفوا على انفسهم ديف nga ba yaq ba yaakaar ne yow moom dootoo si tafi suñu borom ne bul découragé ak si ñëwal la taqratu min rahmatillah bul découragé inna allaha yaghfiru dhunuba jamia mboolem bakkaar yi bu ngeen ko tuubee ma jéggal leen innahu huwa alghafuru rahim sart bay tax mu nangul la ko mooy wa anibu ila rabbikum wa aslimu la dellul ci sa borom tuubal di nga xam itam xam-xam bu wér ne yàlla rek mooy yàlla keneen du yàlla ku dul moom mooy ki nga xamante ni moo yelloo jaam ñi nekkal ko ay jaam moom mu nekk seen borom nekk seen yàlla yi nga xamante ni moo leen sàkk moom moo leen not mbiram seen mbir yépp ci moom yàlla subhanahu wa taala lay dellu moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ne ñi nga xamante bi ñoom ñooy jéem a doyadal mbiru yàlla ak di yëkkati leneen ba di ko xëyee sax gam-gam leeg yàlla subhanahu wa taala nee na dañoo xamul yàlla dëgg-dëgg xam ndax wa ma qadarullah xaq qadari la yàlla wax joxuñu yàlla gëddam yàlla soxlawul ci kenn mu koy jox gëddam ndax jox nga ko gëddam joxoo ko gëddam yàlla li mu am am na ko ba noppi ni muy toll toll na ko du yow mbindeef mi mu sàkk nga xamante ni tekki woo dara fa moom yow la yàlla di xaar nga jox ko gëddam waaye li muy tekki wa ma qadarullah xaq qadari mooy pas-pas bi ngay fas ci sa xol ci ni nga jàppee yàlla yàlla subhanahu wa taala nee na dëgg-dëgg xamuñu dayoo yàlla ndax yàlla nee na li nga xamante ni bi moom mooy suuf ak asamaan ëllëg yowmal qiyam da koy taxañ teg ko ci loxoom subhanahu wa taala suuf ak asamaan yàlla da koy taxañ teg ko ci loxoom loolu junjoon la rek ci misaal bu muy misaalal doomu aadama dayoo yàlla ak màggaayam moo tax yonent bi alayhi salatu salaam nettali ci xadis bi mu jàngee aaya boobu mu wax ne yàlla subhanahu wa taala dafay jël asamaan yi waxul sax asamaan mu téye ko ci loxoom jël suuf téye ko ci loxoom yonentu bi alayhi salatu wasalam taxaw ci minbar bi bi muy wax loolu abdullah ibn omar mu ngi nettali nee na muy tàllal ay baaraamam di ko ngëpp naan yàlla subhanahu wa taala bu ko defee danaan man maay yàlla man maay buur man maay yàlla man maay buur nee na bi ko yonentu bi alayhi salatu wasalam di wax minbar bi mu taxaw mi ngi yëngatu di rëg-rëgi ba ma yaakaar ne minbar dina ànd ak minbar bi daanu ci suuf loolu yàlla subhanahu wa taala wan ñu ci dayoom ak ci màggaayam bu fekkente ni nekk na ci pas-pasub jaam mu xamee noonu borom bi subhanahu wa taala kooku dina màggal yàlla kooku dina xam dëgg dëgg dëgg kan mooy yàlla subhanahu wa taala bu ko defee xam-xam boobu bu nekkee ci xolu jaam bi ci ngay gis ci jëfi jaam boobu luy firndeel ne moom ku màggal yàlla la ndax lépp lu muy jëfati da nga ciy seetlu ragal yàlla ak màggal yàlla mais bu dee pas-pas bu mel noonu nekkul ci xolub jaam kooku màggal yàlla du feeñ ci ay jëfam du feeñ ci ay waxam te itam ñàkk am xam-xam boobu mooy yóbbu doomu aadama di yóbbu nit mu dem bay jël mbindeef ci mbindeefi yàlla yi di ko méngaleeg yàlla mi nga xamante ni moo sàkk lépp lu am te loolu réer weesuwu ko ndax képp ku ko def ci àdduna ëllëg yowmal qiyaam di nga nangu ne da réeroon danga xamul woon ndax yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax ne ëllëg ñi doon def loolu ci kaw suuf dinañ jàkkaarloog ñañ ko doon defal naan leen tallahi in kunna la fi dalalin mubin dañuy wat ci yàlla ne nekkoon nañ ci réer boo xam ne réer gu bër la id bi rabbil alamin jamono ji nga xam ne ñu ngi leen doon méngale ak ki nga xamante ni mooy boromu jaam ñi di borom bindee fi di yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla leen du moom wa huwa alladhi fi sama ilahun wa fi l ard ilah moom yàlla mooy ki nga xamante ni ci asamaan mom mo fay yàlla ji ñi jaamu ci suuf itam mooy yàlla ji ñi jaamu mooy ñi ci suuf yàlla lañu wara jaamu ñi ci kaw yàlla lañu wara jaamu muy jenn yàlla subhanahu wa taala naka non itam subhanahu wa taala xamal nañu ne asamaan ak suuf amul kenn ku fi nekk kuy xëccoog yàlla nootaange gi ak moomeel gi amul daf dafa waxoon ne bu fekkonte ne ci asamaan ak suuf am na yeneen yeneeni kilifa yu fi nekk am sañ-sañu def ak dindi jurul yàlla kon kon dina yàqu waaye dal gi nga xamante ni àdduna dal na ko ba ko yàlla sàkkee ba léegi day wane ne benn buur moo fi nekk def ak dindi ci loxo kenn la nekk mu yàlla ndax bu ca keneen amoon leneen mu yàqu rawatina doomu aadama ndax doomu aadama bu fekkonte ne cërub yàlla ak mën a def ak dindi nekk na ci moom bu ñëwee ci kaw suuf ku mu woo wala mu wax la mbiram gëmuloo ko dina la alak te itam lu ko neex rek mooy am lu ko neexul du am te loolu bu amoon doomu aadama bu am mën-mën boobu kon aduna day tukki moo tax yàlla yonent yi bi mu leen jabalee daf ne leen jottali sama kàddu te ngeen bàyyi samay jàmm def ak dindi ci sama loxo la nekk ndax bu ko tegoon ci seen loxo kon aduna tukki ndax doomu aadama benn pouvoir bi bu nekkee ci loxom bu meree rek def ay moo kon def ak dindi ci loxo yàlla la nekk bu ko yàlla joxoon doomu aadama jox ko leneen kon suuf si dafay yàqu asamaan si yàqu moo tax mu ne law kaana fihima alihatun illa allah la fasadata bu fi leneen nekkoon lu am sañ-sañ ci mën a def ak dindi lu dul yàlla di nga xam ne ci moom la lépp di dellu nee na kon asamaan ak suuf dina yàqu mu daal di feddali moom yàlla ci ayatul kursi nootaangeem ak kàttanam ci nguuram ba kenn sañu caa def loo xam ne joxula ca ndigal te lu nit ki di gën a xam yàlla di gën a màggal mbiru yàlla di gën a ragal mbiru yàlla waaye loo gën a gis nit ki muy ñeme jox boppam dayoo ca yàlla ak teg boppam fenn fi fa yàlla xamal ne xam yàllaam des na man dha alladi yashfau indahu illa bi idni kan moo ñemee ñaan ñaan la wax yàlla ne ko jéggalal diw baalal diw ñaan dongu ñaan jooju kan moo ko ñemee def lu dul yàlla dala cee jox ndigal bu dee ñaan ko moom yàlla ëllëg yowmal qiyaama nga sañ ta def lu dul ne dala cee jox ndigal kan moo am maqaamawu di fa taxaw di def ak dindi ñaan la wax ñaan ko moom yàlla yonent yi nga xam ne ulul azm sax dañuy ñëw ci ñoom naan leen dem leen ngeen ñaanal ñu yàlla waxuma sax mu jéggal nit ñi waaye mu ñëw àtte nit ñi ndax taxawaay bi yàgg na kuñ ci wax nga ni leen ñemewumaa dem di wax dara ndax tey man tiit naa ci sama bopp tiit goo xam ni sañu maa di ñaan yàlla lenn ñooñu lu leen tax a wax loolu mooy dañoo xam yàlla yonent yi ñooy ñi gën a xam yàlla ci jaam ñi moo tax ñu màggal mbiram am ragal ci yàlla gu tax ñuy tit ci seen bopp lu nit gën a xamee yàlla noonu di gën a ragal yàlla di gën a tiit sax ci boppam yonent bi alayhi salatu wasalam lan la doon wax njabootam fegal leen seen bopp safara ndax man mënaluma leen fa yàlla dara kon koo gis muy bàkku wala muy bàkk doomu aadama ci mbiru yàlla di ko ci jox yenn sañ-sañ yi xamal ne xamul yàlla wallahi lazim yàlla ku ko xam di nga xeeb sa bopp ci ci ci ci kanamu yàlla di nga xam ne doo dara fa yàlla subhanahu wa taala di nga xam ne yow sa jëmmi bopp bu la yàlla jéggalul ëllëg yërëm la di nga alku kon ci àdduna nag bu la fi seytaane jayee ba ngay bàkku ak a bàkkaate di joxe ay cëri yàlla di ko takkal ay doomu aadama waru nga ñàkk nga xam wala yeneen pexe ak yeneen xalaat nga moo la tax a jóg mu daal di wax ne walahul masalul aala moom yàlla mooy ki am melokaan bu kawe ba yàlla moo melowoo ak mat ci bunt yépp dara ci luy niroog wàññeeku nekkul ci yàlla subhanahu wa taala kon amul lenn lu mën a am melokaan bi nga xamante ne mooy melokaanu borom bi subhanahu wa taala mu daal di wax ne walahul mathalul ala fi samawati wal ard wa huwa al azizul hakim yàlla mooy ki am melokaan bu mat ba waaye da cee teg loo xam ni lu jar bàyyi xel la ñun doomu aadama yi mu ne yéen nit ñi am ngeen ci ñàkk a maandu seen digganteeg seen boroom fu ngeen ci àgg ba di jël loo xam ne àq yàlla la di ko joxante ci seen biir waaye xam leen ne loolu injustice la injustice weesuwul yàlla sàkk ay mbindeefam indi leen fi defal leen lépp xaarul ci ñoom dara ما اريد منهم رزقا وما اريد ان يطعمون سخلا ول سي نيوم دارا ني ورا خي سوبا با نغون نيك تي ديكو جامو اك ديكو سانت موم يالا ديلو كو نجوكال تي ليپ لوم نين ديفال ني ول باتيكو دي جيل لو خامني اي اقام لا اك اي يلفام لا ديكو اسكانالنت تي سين بير يالا نينا يانا مي توغ انجستيس لا موتاخ مو وخون ان الشرك لظلم عظيم انجستيس بوبو بور ني باي تي خيل داف ني جوخ اكزامبل ضرب لكم مثلا من انفسكم ne yàlla mi ngi leen di jox exemple ci seen bopp loo xam ne bu leen ko waxee di ngeen ko mën a comprendre ci ni ngeen di ni ngeen di defee injustice jëmale ko ci yàlla kenn ku ci nekk kilifa ci yéen am këram am njabootam nekk kilifa ñu ñu dar ko war ko mu tabax këram gu rafet ferenkulaay fa nit ñi war ko ndax dina nangu nit ñëw ci ay àqam ak alalam ak njabootam di ko yemale ak booyam bi nga xam ne ma ngi ca buntu kër ga toog di xaar mu yónni ko kuñ fi màggal ña koy màggal bu buñ la déggee moom kooko ñuy màggal nga koy méngale keneen di ko ko gam-gamleel ci jaami yàlla yi sax ñu mer ci loolu waaye yàlla nag mi nga xam ne bis bu ne ñu jël moom ay melokaanam di ko jox doomu aadama xanaa kenn du ko meral moom moom mi ñuy méngaleeg ay jaamam ay mbindeefam ban injustice moo gën a rëy loolu bis bu nekk ñu koy dégg te kenn du ci mer te kuñ fi màggal nga xaw koo méngaleeg nit sax ne xëy na moom moom ñoo tolloo niveau wala nangam ñu jug di ko démentir di ko weddi dem ci rajo yeeg yi ku ne di wax parce que kooku màgg na ci ñoom màgg goo xam jàppuñ ne nit mën naa tolloog moom waaye yàlla mi sàkk jàmm ñi moom leen bis bu nekk nit di jël loo xam ni ku ne xam na ni melokaane yàlla la moo meelu yàlla la ko koy solal moom mbindeef boobu ci loo xam ne ku nekk xam na ni du dëgg amul mbindeef doomu aadama du yàlla doomu aadama mënul nekk yàlla te kenn du wax yàlla nee na kuñ ci joxoon kuñ ci jëloon jël sa ab jaam wala sa booy sab mindam ci sa kër jox ko sab yellef muy tëdd ci sab lal di fa jaaxaan taal sa oto di doxi mom mom nga mer ñepp dégg la ndax da nga naan lii sama alal la maa ko amu ci sañ-sañ